bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi alladi anzala ala abdihi alkitaaba walam yajcal lahu ciwaja wassalaatu wassalaamu ala sayidina muhammadin almunzali alayhi alquran ala alihi wa ashaabihi alxaamilin alqurani ila yowmi ddin wa man tabia hudaahum ila yowm albaasi wannushur assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu euh, gannaaw bu ñu sante borom bi subhaanahu wa taala moom mi nga xam ne ahlu thanaai walhamdi walmajd moom moo yeeyoo cant ak ngërëm ñu ñaan ko mu wuutu ñu jullil ñu ci yenent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam moom yàlla wàcc ci moom alquran ak mboolem ñi liggéeyal alquran ba bés ñu ngi wax mbokk jullit yëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu tabaarakallahu tey ñu ngi door tafsirul quran wala tawilul quran wala bayaanul quran inna alayna bayaanahu euh, tey nag ñu ñëw ci saar bi gën ci alquran ba pare jëkk ci alquran jiitu ci alquran nga xam ne moom lañ tuddee ummul kitaab ummul kitaab li muy firi mooy ndeyu téere bi ndeyu téere bi parce que moom mooy présenté téere bi tey doon juróom-ñaari aaya mais nee nañ juróom-ñaari aaya yooyu presque jëlaat na ci biiram soixante xisib yi nga xam ne moo nekk ci alquran yépp maanaam moom rek tënk na alquran boo bëggoon xam alquran lan lay wax maanaam mën nga ko jël ci présentation bi nga xam ne moo tudd fatihatul kitab nga xam ne moo ubbi téere bi waaye mooy ummul kitab mooy dëgg-dëgg téere bi al umm mooy firi yaay waaye itam al umm mooy firi quintessence lu mu mën a doon dangay ngay dégg ñu naan ummul balad maanaam ndeyu dëkk bi fekk liñ ci jublu mooy maire de la ville gis nga maire ku ne xam na ne soo yaay lañ koy wax ay maire de la ville dañuy gis ne mooy yaayu dëkk bi parce que képp ku am la jaaxal ci moom nga jëm gis nga màkk tudde nañ ko umul qura ndayu dëkk yëpp parce que ay sayyidul qura moom mooy sangu dëkk yëpp noonu lañ tudde fatihatul kitab umul kitaab yi euh, moom mi nga xam ne mooy ndeyu téere bi euh, unanimité nag boroom xam-xam yëpp ak ulamaaw tafsir yi daje nañ ci ne fatihatul kitab maanaam turam la fatihatu fatiha li muy firi mooy liy ubbi téere bi maanaam boo yoroon sa kaamil page bi ngay njëkk a daj moom moo ciy nekk effectivement kon moo ubbi téere bi mais li ñu gëm moo di moom moo gën itam ci saar yi ci alquran yëpp alquran am na cent quatorze saar comme ni niñ ko waxee waaye moom bi nga xam ne mooy première saar bi moom moo ci gën te moo taxawee place su première li nga xam ne mooy waxdaaniyatullah mooy kenn gi yàlla nekk kenn euh, mais nag bari na ay tur ndax tabaarakallahu dañu wax ne kasratul asami tadullu ala sharafil musammi musamma bari ay tur bari tur ci ay ci mbir dafay tegtal njariñal tur yooyu liir dina juddu ñu ne liir bi juddu na góor la mu am une semaine ñu ne tudde nañ ko Souleymane tuddoon na démbaliir Liir tudde na tey Souleymane ñu demaat quelque temps ñu ne élève la même même nit ki la ñu jekki-jekki ne étudiant la même nit ki la ñu jekki-jekki ne docteur la même nit ki la ñu jekki-jekki ñu ne embauché la ci fonction publique ñu jekki-jekki ne directeur d'entreprise la jekki-jekki tuddee ko savant ñu jekki-jekki tuddee ko opérateur économique ba yàgg ñu tuddee ko ilimaanu ratib ba yàgg ñu tuddee ko maanaam chef de quartier ba yàgg ñu tuddee ko ministre et cetera tur yooyu muy bari bari benn nit la waaye selon fonctionnalité yi mu am ak njariñ yi ci lay wuute fatiha téere yi nee nañu utal nañ ko ay dizaine de noms loolu tafsir yi mais yi ci gën a fës moo di tudd na fatihatul kitab mooy liy ubbi bi ñëpp xam nañ ko tudde nañ ko sab'ul mathani ndax yàlla moo ko waxal yonent bi boppam ne ko walaqad aataynaaka sab'an min al mathani wal quran al azim kon tudde na sab'ul mathani tudde na al kaafiyatu mooy li nga xam ne doyoon na sëkk li tax ñu tudd ko kaafiya mooy dañ wax ne képp koo xam ne danga nga julli yonent bi nee na la salaata liman lam yaqra bi ummil quran yeneen ci bi na ku jàngul alqur maanaam ku jàngul ci sa julli fatiha sa julli wérul maanaam amoo julli nee nañu kaamilu alquran bi yëpp boo tari woon maanaam boo kàbbaroon ju jaay ne xaafisul quran nga mën a tari kaamil bi yëpp ba mu jeex ci sa julli geewe wala suba wala timis te jàngoo fatiha avant sa julli googu wérul waaye nee nañ boo mënul dara dara dara ci alquran lu dul fatiha nga tari ko ci ñeenti rakk yépp julli ga day wér donte sunna nga bàyyi <coughs> kon nga gis ne moom kenn mënu ko wuutu te moom mën naa wuutu ñëpp moo tax ñu tudde ko alkaafiya mooy lu doy sëkk bokk na ci ay turam umul kitaab mooy ndayu téere bi bokk na ci ay turam alwaafiya alwaafiya mooy li mat sëkk moom dafa mat sëkk ba nga xam ne tabaarakallaahu bokk na ci ay turam alwaaqiya liy fegalaate maanaam li ñuy tudde ñun gàllaaj gàllaaj gi nga xam ne dalay fekk ba dara du accéder ci yow te loolu gis nañ ko ba tàyyi ci xadis yonent bi sallallahu alayhi dara di metti nit rek euh, mu ne la fegool fatiha ak falaxeeg wala nit ragal dara mu ne la fegool fatiha ak falaxeeg naas bokk na ci ay turam achafiya la guérison maanaam liy fajaate maanaam kon fatiha au delà de alquran moom ci boppam maanaam médicament la mais fatiha ci boppam rek moom it médicament la day faj moo tax ñu tudde ko a achafiya lii fajaate wa nunazilu min alqurani ma huwa shifaun wa rahmatun lil muminin euh, faj googu alquran maanaam fatiha di faj yonent bi wax na sax ci beneen xadis ne man lam yashfihi alquran la shifaa lahu koo xam ne alquran mënulaa saafara fan ngay jëlee ci saafara maanaam moom moo gën a crédible ci saafara bépp jàngoro bu ñuy ragal euh, jat la alquran jat la boo xam ne nii feebar bu la dal wala loo ragal boo ko jàngee moo gën a crédible jat yi ngay gis yépp ci dëkk bi te loolu xadisu abi said alxudri di saxaabi bu mag boobu moom moo ko confirmé parce que yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam daf ko mës a yónni ci benn sariya benn expédition moom ak lim ci ay saxaaba bi ñu demee ci sariya bi yàlla dogal ñu dem ba la ñu yoroon ci lekk jeex ñu yoroon ci naan jeex loolu yéemewul parce que saxraa lañ nekk te foofu ay dëkk yombu fa ñuy dox ba dajeek benn village ñoom ñu ne nañ jàdd ci village bi ñaan fi lu ñu lekk ak lu ñu naan bi ñu ñëwee ba ci village bi nuyu leen ne est-ce que doo leen ñu mën dalal tuuti may ñu ñu lekk ak ñu naan ndax dañoo xaw xiif ñooñu waxuma tontuwuñu leen mais faalewuñu leen sax xam naa mooy taluñu leen ah bon ñu ñàkk pexe ñu campé à côté la euh, def fa benn seen tànt foog fa amuñu lu ñu lekk amuñu lu luñ naan mais à la ñu noppalu ndax ñu mën a gisaale nit nekkete yàlla lu ko neex lay def ñoom naka lañu fa yendu ba ngoon jàpp timis fa ludira sayidul xay yi maanaam chef de quartier bi nekk ci dëkk ba di seen kilifa ci ngoon gi rek benn jaan matt ko jaan boo xam ne xamuñu fu mu jógee yàlla lu mu def looloo gën euh, góor gi nag di di yuuxu di jooy waa dëkk bi ñëpp ñëw tiim ko te ñoom mooy seen yaakaar euh, mu naan utal leen ma ku ma jat utal leen ma ku ma mocc Euh, bi ñu xoolee dëkk bi kenn jàngu fi lu mën a moccaate am ku ne ah mais am nañ fi ay gan yoo xam ne dañ doon romb campé nañu fële est-ce que duñ dem ci ñoom laaj leen ndax kenn xamu ci euh, mocc jaan ak euh, yu mel noonu ak jat jat jat jaan après ci lañ dem ci mbooloo mi nuyu leen ñeneen dañ leen laaj ndax amul ku fi mën a jat ñu ne ci lan ñu ne jat jaan parce que suñu kilifa jaan moo ko matt léegi ñu bëggoon bu dee am na ku ko mën a jat ngeen dimbali ñu jullit ji mer ndax ñoom ñu ngi léegi lañ dem ci ñoom doon sàkku ci ñoom lu ñu lekk lu ñu naan ñu ñu bañ ba pare ñu ñëwati fii di leen demander service ñu bëgg koo wax ne que eh ñun xamuñu fii ku fiy jat jaan te wax dëgg yàlla kuy jat jaan ci ñooñu nekku fa parce que ñooy yonent bi moo leen yónni ci sëriñ ya ñuy dox service yonent bi ñu ay jat jaan ak yu mel noonu xamuñu ko sax. waaye Abu Saïd mi leen jiite am fit rek jug taxaw ne man mën naa jat jaan jat jaan rek loolu yomb na mën naa ko ñu ne ko mën nga ko mu ne waaw jullit yi mu àndal yëpp nag jaaxle mënuñu koo weddi waaye mosuñoo xam ci moom loolu waa dëkk bi ne ko kaay dimbali ñu kon ndax kii foor na lool ci ñun te bu ko jaan reyee musiba dina am moom Abu Saïd mu ne leen à une condition parce que sànq lañ fa ñëwoon di leen ñaan lu ñu lekk ak lu ñu naan ngeen bañ léegi kon du ma ko defee noonu rek ci ci Mali foro léegi xam nga noo leen def da ngeen may fay euh, bu ko defee ma jatal leen ko ñooñu nekk yow kay waxi fay moom du problème loo bëgg a laajal waaye yow jatal ñu góor gi rek ba mu jug Abu Saïd nee na mu jug dem ne jullit yi ah, toppaleen ma ñoo ne ñoom ñu ngi tiit parce que gàcce gi moom mosuñu koo xamee muy jat jaan waaye effectivement ànd nañoo ak moom ba ñëw fekk euh, góor gi mu ngi tëdd ajbat yi abu said alxudri yi fatihatul kitab lañ dégg mu jàng ko aoudu billahi min alamin ba wala dallin ëf ko ci loxo bi ëf ko ci waa ji xadis bi ne ka annahu eh, eh, eh, nushita min iqaalin gis nga dangaru jaan ji dafa mel ni dañ ndëg buñ la mattoon ñu rocci ko ci saasi ka annahu dafa mel ni nushita dañ koo rocci rek min iqaalin waa ji ne tis jug taxaw dangar bi wàcc ñu ne ko ah nuyanteel ak kilifa gi kii de moo la mocc nangam nangam ñu jël jur gu baree baree bari ndax kilifa la ay xar yu baree bari tabaarakallaahu jox ko abu euh, abu saïd moog jullit yi jox leen ñu lekk jox leen ñu naan ba daanaka waxatuñ dara ci lañ continuer nag euh, seen yoon woowu saxaaba yëpp nag ne leen waaye ne Abu Saïd yow euh, fan nga mënee jat mu ne leen man mosuma jàng jat xaw ma luy jat waaye sama xel a dem ci ne comme ñii demandé na leen demandé nañ leen service ñu bañ man it naa leen naa leen demandé service ñu jox ma lii ñu ne ko loo ko jàngal mu ne fatiha ba wala daalin xam nga ñoom xamuñu fatiha parce que dëkk boobu ñoom du ñu ay jullit euh, en retournant léegi nag ñu ne nu ñuy def xar yi nu ñuy def xar yi nu ñuy def jur gi nu ñuy def jur gi ñoom jullit yi seen ragal yàlla àgg na ci ne comme daal lii ñun mësuñu ci am expérience bu ñu ko lekk bu ñu ko naan bu ñu ko séddoo nañ ko gurgural ba madinatu munawwara bu ñu demee jox ko yonent bi mu joxe ci position ñoom saxaaba yi bi ñu demee dox seeni soxla ba dellu sewaat gurgural jur yi ñëw ba ci abi euh, ñëw ba ci yonent yàlla muhammad abu saïd wax ka li mu def jullit yi yi ko fekkee ñu ngi taxaw bi mu agsee ba ci ne fatiha ko jàngal nag ëf ko ci mu wér ci saa si yenent bi ci waxin dafa ree ne wama adraka annaha ruqya waaw yow Abu Saïd lan moo la xamal ne fatiha mën na mocc mën na jat loolu ko xamal ree xanaa exactement kon loolu mooy sunnatu taqririya yonent bi dëggal na ko mu ne waaw léegi li ñu ci fay ci jur nuñ koy def mu ne aqsimu baynakum wadribu lii bi sahm séddoo leen ko seen biir te ngeen jox ma ci sama parti man sama wàll kon ci lañuy ñuy xamee ne ba tey jii looloo tax nit bu la bindalee alquran wala mu mocc la ci alquran la ngay jël di ko jox mënul doon lu xaram parce que yonent bi lekk na loolu maanaam Abu Saïd ci la séddale jur yi par rapport ak ñoom ña fa demoon nga pare génnaale ci cëru yonent yi bu dee dix personnes lañ ñu def ko onze xaaj dix personnes yi kenn ku ne benn xaaj bi ci des yonent bi jël ko waaye bu doon jamono jii da gis waa ji jàng faatiha bi danaan noo man aw ma ku ma koy séddool parce que man maa jàngoon bëgg a dem ak kaaw bi kon nag jaaduwul parce que ki fekke am na am na cër boo gisee ci miraas ñu ne sax su euh, yarzuquhum ñi fekke miraas bi li gën mooy ñu jox leen ci dara parce que bët dafa am àq loolu mooy euh, xadiisu maanaam Abu Saïd boobu pour dëggal ne alquran kon maanaam day fajaate ne rawatina fatiha bii nga xam ne boo ko gëmee mënal na la lu ne maanaam fatiha moo gën a crédible piqûre moo gën a crédible nan ay garab euh, te ñi ko gëm gis nga ñu ngi koy jariñoo ki ko gëmul nag kooku kenn mënul ci moom dara ndax ngëm-ngëm dafa am solo benn waaye dafa ñëw ci benn docteur ñe ko dama feebar nangam ak nangam moo ma dal nga bëggoon daal nga xoolal ma ko mu xool xool xool ba ne ko yow bindal ko ordonnance bi mu ko bindalee ordonnance jox ko ko euh, moom xamul luy ordonnance ak fu ñu koy jëndi jee mu dem rek jël ja fooy bi jàmba ko jàmba ko naan lenn li li ci des mu sangoo ko fa la jaari wér ndax da ko gëm ay fan mu mu delluwaat ci docteur bi docteur bi nekk waaw naka yaram mu nekk ah man kay santale gërëm la rek moom fi indi mu ne ko garab yi noo ko jëlee mu ne ko non <clears throat> bi nga ma ko joxee rek dama dem jàmba ko rek bi ma ko sangoo nan li ci des rek daanaka fa laa jaaree wér ba léegi docteur bi dafa jommi moom waxatul ba tey waaw ku mën a jël nag euh, benn ordonnance jàmba ko sangoo ko naan wér massa ku la bindal faatixatul kitaab moo tax ñi naan loolu cirque la li naan ñi naan loolu du dëgg ñoom ñoo dul dëgg parce que yonent bi nee na man lam yashfi al quran ku alquran mënta faj la shifa lahu fooy jële faj mm-hmm. kon bindal nit alquran jox ko ko mu naan wala nga bind ko ci alwa raxas ko jox ko mu naan jox ko mu sangu loolu wax ku ko bañ xaw ma nooy def xadiisu abi saïd bii euh, te li ci yéeme mooy garab yi nga xam ne moom ngay fay faju jee yëpp di dem ci pharmacie yi yow ñooñu ña defar garab ya gëmuñu yàlla mais gëm nga ne boo demee jël garab yooyu wér mais bii nga xam ne moom yàlla ci boppam moo waxal boppam ne médicament la yow nga ne waroo ko jël ndax dafa xaraam kooku nag wax dëgg yàlla feebar feebar bu rëy rëy rëy la yàlla na ko yàlla faj ci ñun kon fatiha chafiya la tudd mooy luy fajaate euh, bokk na ci ay turam tabaarakallaahu euh, alkaafiya comme niñ ko waxee woon sànq nga xam ne kon bari na ay tur lool bokk na ci ay turam annafia mooy liy jariñ te effectivement kooku jaan mattoon moom xam na ndax fatiha day jariñe wala déet kon yàlla ñu jariñ ñun ñëpp mais fatiha li yéeme ci moom mooy dafa def ñetti maanaam saar bi ñetti parti la moo tax yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa wax ne yàlla wax na ci xadisul kursi ne qasamtu salaata bayni wa bayna abdi nisfayn euh, yàlla dafa wax ne faatixa ci boppam mbokk na ci ay turam assalaa maanaam la prière la prière moo tax léeg-léeg nga gis kuy ñaan di jàng faatixa parce que c'est une prière euh, mu ne yàlla dafa wax ci xadiisul kursi ne man maa séddale lii ñuy tuddee faatixa di la prière deux parties benn partie bi maa ko moom bi ci des samay jaam laa ko sédd bi ci des maag ñoom ñoo ko séddoo mu mel ni benn corde boo xam ne maa téye benn côté bi benn jaam yi téye beneen côté bi nee na fa ida qaala abdu alhamdulillahi rabbil alamin qultu hamidani abdi nee na parti bi ma téye man bi ma féete man yàlla bu nit ki ne alhamdulillahi rabbil alamin yàlla danaan ah sama jaam bi de mu may sant nee na bu ne rahmaani rahim arrahmaani rahim mu ne majjadani abdi sama jàmm bi de mu ngi may glorifier bu ne maliki yawmi diin mu ne azamani abdi sama jàmm bi de reconnaître na sama grandeur loolu noonu mooy parti bi yàlla moom fatiha loolu yàllaa ko ci moom kenn seddoo kook moom yàlla mooy alhamdulilahi rabbil alamin mooy arrahmaani rahim mooy maliki yawmi diin séddoo kook kenn mu ne boo nee iyaaka du wa iyaaka nastain mooy corde bi dox sama digganteeg yow ndax iyaaka bu du maaka moom wa iyaaka nastain yow yaa ko moom ndax yaay dimbaliku ci man léegi beneen partie bi nga xam ne nii jàmm bi ci boppam moo ko moom muy ihdina siraat al mustaqima siraat alladina anamta alayhim gayri almaghdubi alayhim wala dalin loolu niveau jàmm yi la mooy da jàmm bi dafa ñaan lu baax muslu fa ci lu bon nga gis ne kon li ñu waxoon ci dars bi passé ne juróom juróomi style la alquran indi muy alqasas muy euh, al amru ak an nahyu ak al waadu ñu waxoon ne mooy bishaara ak al waidu ñu wax ne mooy an nidaara ak al euh, qasas maanaam al qasas al amru an nahyu al waadu al waid juróom yooyu mooy silu alquran nee nañu et pourtant juróom yëpp fekk nañ ko ci al euh, ci fatiha parce que bu buñ jëlee ci euh, alqasas mooy xayril maxdubi alayhim wala daalin ak siraat alladina anamta alayhim al amru mu dellu ci ihdina siraat al mustaqim ak iyaaka nacbudu wa iyaaka nastain an nahyu muy al maxdubi alayhim wala daalin liñ leen tere woon la ñu deful al wacdu mu dellu ci Euh, ak alwaidu mu dellu dellu ci mali euh, arrahmaani rahim ak maliki yowmi diin bokk na ci dimension fatiha pour wane ne istigraq na alquran maanaam moom jeexal na alquran yépp bokk na ci ay mayam nit ñett yi rek la amee ci digganteem ak boroom moo di almahabatu ak arragbatu muy al euh, raja ak li ñuy tuddee alxawfu muy arrahbatu wa yad'uunana raghaban wa rahaban wa kaanu lana xaashiin gis nga jàmm boo gis relation ak boroomam ñaar rek la mooy almahabatu day bëgg yàlla nit mënoo ko jaamu maanaam yàlla mënoo ko jaamu wala nit mënoo ko nangul te bëggoo ko même mariage sax li koy jiitu mooy mbëggante daf fay nekk looloo tax mariage ji mën a am kon sa sëriñ boo koy topp da nga koy bëgg d'abord entreprise bi ngay liggéeyee pour nga man fa liggéey da ngay bëgg entreprise bi et cetera et cetera nit daal lu mu bëggul loo ko ci forcé forcé du dem kon yàlla faw nga bëgg ko d'abord yuhibbunahum ka xubbillah walladina amanu ashaddu xubban lillah kon jaam bi pour mu doon dëgg-dëgg li mu war a doon faw mu bëgg yàlla mais itam mbëggeel du xëy rek ñëw koy bëgg ko ne dalay da ngay yaakaar ci moom dara mais koo koo yaakaarul ci moom dara dëgg yàlla doo ko bëgg moo tax yàlla pour mu ñu bëgg ko dafa tudd arrahman dafa tudd arrahim melokaanam yu baax yooyu moo tax bari na milliardaire bu bari torop torop ay xarit këram di fees dell ki nit koo ci laaj lan moo tax nga bëgg a waa ji du la ko wax waaye nit ñi dinañ ko xam bala nga xam ne am na lu ko lu ko jur waaj a daanu bis bu waaji a daanoo ña nga fa gis doo fa gise ci kenn kon képp ku bari teraanga otomatiquement dañ lay mën a bëgg nit moom ci lii rek lay bëggee am am bu bari ngay bëgge nit wala xam bu bari ngay bëgge nit wala taar bu bari ngay bëggee nit wala teraanga ju bari maanaam nit ku la yàgg teral foofu nga bëgg ko par nit ku rafet loolu itam donte defalu la dara dafay neex a bëgg moo xam góor la moo xam jigéen la ku la raw lool ci xam-xam itam bari la ko lool danga koy bëgg par force bari na koo xam ne mu ngi def sëriñ koo xam ne mosu koo gis di cité ay waxam fu mu tollu di ko bége parce que xam-xam bu bari ba kooku am moo tax mu bëgg ko maa ngi bëgg a wax ne daal nit bu la sutee dara nit bu la sutee dara danga koy mujje fan nit bu la ëppalee dara danga koy mujje fen parce que loolu c'est naturel waaw bu fekkee nag yàlla moom lu nit di nawe nit moo xam am-am la wala alal wala taar wala teranga moom yàlla waxuma ne moo ko ëppale waaye moo ko jox ko ñi ko jot a am kon kooku nga bëgg ko dafa jaadu al mahabbatu ñu bëgg yàlla parce que rajaa u moo fi nekk maanaam dañuy yaakaar dara lu ne ci moom beneen bu mujj mooy alxawfu mooy ragal ndax koo xam ne dalay tëkku tëkku yu toll nii alquran di tëkkuwaate kooku boo ko ragalee jaadu na kon yàlla dinañ ko bëgg ngir ngir terangam yu bari yi waaye itam dinañ ko jaamu ngir ragal toroxte yi nga xam ne dina ko toroxal ñi ko weddi maa ngi bëgg a wax ne kon ñett yooyu yëpp nag fatiha moom début bi rek moo ko jël ndax bu dee raja rahmaani rahim moo ko jur moo jur mahabba euh, maanaam euh, alhamdulillahi rabbil alamin afwan mooy jur mahabba arrahmaani rahim mooy jur raja maliki yow mi diin nag ni mu la intimidé ne ah attention am na bés dinaa la atte moo tiital ñëpp ba ñu mujje ragal yàlla yëg nga ne bari na kuy julli wala muy woor gëm yàlla dëgg-dëgg taxul waaye xam ne bu ko deful ay duuma topp ci hmm? xam nga lu la sa baay digal wala mu tere la ko defoo ko nga xëy xëy ba gendarme bi ñëw mbéj la ña la defal nangam nga nekk avec plaisir est-ce que avec plaisir nga ko defee mhm. déedéet avec ñàkk pexe nga ko defee mhm. loolu moo tudd alxawfu maanaam bari na kuy jaamu yàlla fekk li mu tudd maliki yow mi diin moo tax mu ngi lay xaare bés boo xam ne bés bu ko gën a sévère amul te duma ya kenn xamul lu mu toll hakaza kon nga gis ne faatixa moom moo dajale mbooleem lépp loo xam ne lu ñuy yaakaar la ci jàngale ak bi jamii jawaanibihi fatiha dajale na lépp loo xam ne yaakaar la bu ñuy yaakaar yàlla waaye dajale na lu ñuy ragalal yàlla dajale na lu ñu war a ñaan ci àdduna ak alaaxira léegi nag nga gis euh, dëgër euh, maanaam bariwaayam sayiduna jibril alayhi salaam wax na ne mu ngi am xel mu dal bi yàlla wàccee suuratul fatiha ci xeetu yont yàlla muhammad ndax moom jibril xam na ne képp ku mokkal fatiha ba yawmal qiyaamati yàlla du la du la lakk euh, neex naa gëm parce que àdduna bi li fatiha di yomb yomb nga xam ne ku ko bindoon ci benn page du fees àdduna bi lu mat huit milliards di fi dund xam nga ñi mokkal fatiha bariwuñu ah jullit yi rekk ko mokkal moo lay wan ne ñi warul a dem àjjana du ñu mën a mokk xamuñu sax existence u fatiha ba koy mokkal looloo tax yaa ngi mokkal loo xeeb xale sa sa doom bi am trois ans bés bu jot mu tari la faataxa ne la sama sëriñ moo ma ko jàngal moo tax euh, benn amir dem ci fa tabarakallahu euh, benn amir dem ci benn sëriñ daara ne nañu Seydina na la euh, dem yóbbu doomam ci benn sëriñ pour mu jàngal ko alquran mu jàngal xale bi alquran keroog bi xale bi mokkalee fatiha ba dem taril ko pàppam pàppa ji dafa dajale ay hadiye yu baree baree bari ak enveloppe boo xam def na ci lu am solo ñëw indil ko sëriñ bi mu ne ko lii lan la mu ne ko sama doom laa testé e, mu jàng fatiha ci anam bu rafet ba mokkal na ko boobu hadiye hadiya maanaam loolu moo jur ma bég ba indil la hadiya bii Ah, sëñ daara bi ne ka sëriñ bi li nga def ëpp na kat parce que yow nangam nangam fatiha rek jarul lii fatiha rek nangam nangam bi mu ko nee fatiha jarul lii mu nekk kon nag nga jéggal ma bés ni tey xale bi du fi jàngi seeti ndax comme yow réere nga dooley fatiha ba jàpp ne buñ la indiloon àdduna ak li ci biir sax day ëpp ci fatiha kon yow xamagoo valeuru fatiha kon bàyyil ma jël sama doom yóbbu ko feneen fu kooku xamee xaqu alquran nga gis ne kon waxuma sax fatiha waaye Mawlana Cheikh El Hadj Omarul Fouti radiyallahu anhu keroog ba mu demee Misra ak yafa xew yépp ci ay miracle yu kenn mënula la yéem maanaam kenn mënu la nettali ak Cham ñu wax ko ne que doomu kilifa dëkk bi dafa am yu ko feeñu jommal ko ba daanaka xamatul fu mu ne. ku nekk yóbbu nañ ko ci moom pour mu ñaanal ko mais comme yow yàlla am na lum la xamal ñu bëggoon rek nga dimbali ñu defal ko ñaan. Euh, mu ne ah loolu amul solo jël benn feuille bind ci lim ci bind euh, takk ko maanaam ba mu dëgër doon benn gàllaaj mu ne boo leen demee boo leen ko takkalee xale bi rek dina dellu siwaat à la raison effectivement dañ ko ko takkal rek xale bi mel ni ku doon nelaw ba yeewu naan lii lan la lii lan la ñu ne ko meew sa xel dafa rëccoon mu ne man dara jotuma sangu ba set solu ba rafet wax dëgg yàlla buur bi kontaan lool <gasps> ndax amul woon ku dul kooku fonkoon ko lool xel mi rëccoon ab diir mais dellu sewaat na borom xam-xam ya fa nekk nag daje ne mais lii lii nu mu mën a nekk kii feebar est-ce que liñ euh, euh, ñaan gu ne gu ñu xam ñun mufti ya fa def nañ ko xale bi di gën a rakkaaju kii ñëw ñuul kuk jóge euh, sowu jant bindal ke lenn rek mu wér ci saa si am ñuy dutew naan est-ce que liñ lim ko bindal du lii est-ce est-ce que du lii est-ce que du lii coow li bari ñun euh, ñu ñëw ba ci Mawlana El Hadj Omar Fouti nekk ñun day am jaaxle lan la mu net ñu nettal leen li xew ñu ne nag dañ la doon laaj ndax may nga ñu ndigal gàllaaj bi nga ko takkal ñu dajji ko xool lan lan nga ci def daal ñun def na jaaxal nañu mu ne am ngeen ci ndigal ah ñu dem jël gàllaaj bi dajji ko benn feuille bu ndaw la sax ndeke mu ngi ci bind bismillahi rahmaani rahim ñooñu am choc. bi mu dellusee ne ko mais ñun dañu jaxle parce que ñun dañ foogoon ne lu ne nga bind mais ndekete bismillahi rahmaani rahim rek nga ko bindal mu ne waaw kay rekku googu ngeen ko rekku ñu bismillahi rek looloo tax du leen manal li ma manal man ndax bu fekkee dañ ne leeru alquran yëpp ak baatinu alquran yëpp ak sirru alquran yëpp yàlla mu ko roof def ko benn bal rek benn bul bulu lumière roof ka ci fatiha mais itam fatiha li ci nekk yëpp ci lumière yàlla mu ngi ko def def benn bul roof ko ci bismillahi rahmaani rahim waaw kon kooku loolu daanaka bismillahi rahmaani rahim sirru kaamil bi yëpp ci la boo leen ko rekkoo nag du leen mën a loolu mu man kon loolu mooy taaliq bi nga xam ne moom lañ doon introduire fatihatul kitab ñu jëm ci charxu maani euh, maaniha xasba tawfiqi rabbina azza wa jalla ñu wax ne juróom-ñaari aaya la aaya bu nekk euh, euh, ñu ngi laaj euh, ndax bismillahi rahmaani mooy première aaya bi wala alhamdulilahi rabbil alamin coow lu bare bare nag am na ci ci ulamaawu tafsir ak sixa borom madhab yi loolu dañ ci attardé wu mais imam Shafii dogu na ci ne aaya la ci imam Malik imam daaril hijra ñoom dañ ne sax sib nañ ko ci julli waaye ala kulli xaalin fatiha foor na foor ba bis bu jot jullit bu ne minimum dina ko baamu 17 fois ndax 17 ràkku farata yi amul boo ci dul jàng fatiha ndax yeneen ci bi neen la salaata liman lam yaqra bi ummil ku jàngul fatiha amoo julli kon minimum di nga ko jàng 17 fois booleeg safa ak witr peut-être muy 20 ak say naafile yow yi nga war a def ak ñaan yi nga war a def ak dog yi nga war a def yooyu moom gën naa bari ñu ne bisimilah rahmaani rahim comme dañ gis ne kaamil bi ba mu san 114 saar yëpp benn bu ne bisimilah rahmaani la tàmbalee dañ wax ne coutume boobu rek moo dellu sawaat ci fatiha moom dëkk ko ubbee mais fatiha mu ngi tàmbalee alhamdulilahi rabbil alamin donte nag bisimilah rahmaani rahim benn coupure la ci benn aaya fële ci suuratu saba wa innahu min suleymaan wa innahu bismillahi rahmaani rahim mais du moom moom mooy aaye eh, eh, maanaam maanaam du moom mooy aaye exclusivement am ñu ne déedéet da nga leen di boole da nga naan bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin da nga xam ne ñun suñ tariqa ci la tënku bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin euh, léegi gannaaw loolu lan la firi bismillah xam nga baaw ba maanaam xarfu jar la jar wa majruur te jàng nga ci nax wu ne bépp jum la boo xam ne mu ngi tàmbalee ci xarfu jar ak majruur dafa am lu ñu fay nattale dafa am lu ñu xasaf foofu bismillahi maa ngi tàmbalee ci tuuru yàlla samay wax ak samay jëf kan mooy yàlla allah waaye dafa am loo xasaf te mooy maa ngi tàmbalee kon li ñu fi taqdir mooy ëbtadi u maanaam maa ngi tàmbalee ci lan bismillah ci sama euh, ci turu yàlla looy tàmbalee aqwaal yi samay wax wa afaal yi ak samay jëf wa xarakaat ak samay yëngu wa sakanaat ak samay dal bu may dox bismillah laay wax bu may toog bismillah laay wax bu may tàllamp bi bismillah laay wax bu may dugg ci toilette bi bismillah laay wax bu ma génnee na alhamdulilah bu may dugg ci jàkk ji bismillah laay wax bu may joteeg sama soxna bismillah laay wax bu may sol sama yére bismillah laay wax bu may wàcc ci escalier yi laay wax bu may taal télé bi bismillah laay wax bu may taal rajo bi bismillah laay wax bu may wuyu sama portable téléphone bismillah laay wax bu may taal sama ordinateur bismillah laay wax bu may dugg ci sama euh, bureau bismillah laay wax bu may toog ci sama fauteuil bismillah laay wax bu may tëjaat sama buntu bureau bismillah laay wax maanaam lépp loo xam ne activité la boo xam ne maa ngi koy def ab tëddi u maa ngi koy tàmbalee bismillahi ay bi bismillahi ci turu allah kan mooy allah mooy ismul alam mooy ismul martabati al li jamii al asmaai wa sifaat yàlla 99 noom yi mu ci am benn tur moo ci officiel yi ci des yëpp ay attribution la mooy yàlla yàlla rek la tudd gis nga yàlla ba tey kenn mënu ko changer gis nga pulaar bi àlla lay wax muy allah gis nga olof bi yàlla lay wax maanaam moom allah la tudd jeex na yàlla moomu nga xam ne mooy allah moom laay tàmbalee lépp lu may def yonent bi nag nee na kullu amalin di balin laa yabda'u ubbi bismillahi rahmaani rahim fa huwa abtar ay maqtuu yonent bi nee na lépp lu nit di def te tàmbaleew ko ci bismillahi rahmaani rahim mbir moomu dafa dog dafa dog maanaam dafay néew barke looloo tax nga gis kii wax sax mu ngi naan gannaaw bu ma tàmbalee ci bismillahi rahmaani rahim tàmbalee samay wax ci turu yàlla nangam kuy wax ku mu mën a doon rek loolu ngay wax moo tax même bismillahi rahmaani rahim maa ngi ñaan même ñii lii jullit yi bind livre yoo xam ne du sax arab la gën mooy ñu bind ci kaw bismillahi rahmaani rahim soo ko wax oh mon nangam nangam mais bismillahi rahmaani rahim jullit warul def dara te tàmbalew ko léegi nag du charte nga wax ko ci sa làmmiñ ba ñëpp dégg ko man nga ko wax rek sa sa xol ne bismillah def li ngay def. Euh, yàlla moomu abtadi ulaay tàmbalee samay jëf kan mooy allah mu ne arrahman mu def badal mu def badal kan mooy dafa mel ni danga ne ko kan mooy allah mu def atfu bayaan wa tafsirin man allah mi may wax mooy arrahman ki nga xam ne moo wërsëgal képp ku nekk ci àdduna rahman ñu ngi ko euh, tëggee ci wësnu faalaan arab lépp lu mu tëgg ci faalaan yadullu lil imtilaa mooy wane na mbir ma dafa fees dell dell dell rëy rëy lool ba nga xam ne bàyyiwul benn portion faalaan loolu lañ koy firee mu ngi mel ni was wasnaan ak xadbaan euh, yooyu li muy firi mooy nit koo xam ne fees na del xadbaan mooy nit ko xam nga xadiba mooy mere na xadibun mooy ku mer mais xadbaan mooy nit ku mer li olof di wax dafa mer ba futt euh, imtilaa mooy loo xam ne maanaam fees na del yàlla dafa tudd rahman rahman mooy koo xam ne yërmandeem dafa matale ñëpp ñëpp ñëpp moo xam ku baax nga wala ku bon nga moo xam kuy julli moo xam ku dul julli moo xam kuy woor moo xam ku woorul maanaam noo mën a mel yàlla pare na pour yërëm la rahman moo tax bu yemoon ci rahman kese du bind safara ndax safara warul am existence ci turam bi ñuy wax rahman moo tax rahman yàlla indi ko fii ci àdduna di fi xéewalee ñi koy moy boo gisee ñii moy yàlla wala ñi gëmul yàlla presque sax dangay seetlu ne ñoo ëpp wërsëg ñoo ëpp aisance ñiy jaamu yàlla loolu rahman moo ko def imtilaa bi moo tax muy ar arrahman allama al quran gis nga rahman boobu moo la may yàlla tasaare lumière am ba kenn ku nekk mën a am accès ci alquranul karim ba kenn ku nekk am sa diggin ci alquran ak foo mën a toll ndax rahman moo ko def yàlla nag nee na sabaqat rahmati ghadabi sama yërmande googu moo jiitu samay mer moo tax vraiment vraiment boroom xam-xam yi nee nañ ku sàggan ba dem safara dem safara maanaam ku ko sàggan maanaam sàggante lañ ko jàppe nee nañ képp ku sàggan ba dem safara dafa mel ni yow yaay sonn di œuvre di œuvre di œuvre di sonn di daj lu ne pour dugg safara parce que dem safara jaaduwul maanaam yow yow li nga daj pour dem safara yàlla <laughs> daj na lu ko ëpp pour yërëm la nga bañ ne rek yow yaay dem safara yow ndax rahman moo tax maanaam rahman dafa mel ni yow warul woon may kenn mu war a dem safara kon képp ku forcé forcé forcé ba dem safara maanaam yow yaa yaa fournir énergie yu la yóbbu foofu yàlla nee na bi ma bindagul dara dara dara te yàlla li mu bind yëpp ci yërmandeem la ko bind mais nee na bi mu bindagul dara dara dara dara dara dafa tuddoon rahman nee na loolu li muy firi mooy juróom maanaam téeméeri géej yi yërmande la amoon téeméeri géej yi yërmande la am benn géej bu nekk benn géej bu nekk boo boolee woon asamaan ak suuf ak li ci diggante bi yëpp benn géej gi moo leen ëpp mu am ci nag téeméeri géeju miséricorde xanaa bari na yàlla nee na ma commencé bind création bi bi ma commencé bind création bi création bi maa ngi leen di bind ci sama yërmande di leen di leen mooñi ci sama lumière u géeju yërmande googu ci laa leen di xéewalee ci laa leen di jox ñu lekk ci laa leen jox ñu naan ci laa leen di màggalee ci laa leen di vétir ci laa leen ci laa leen ba ba àdduna tukkiwaat xam nga wax dëgg yàlla sa dépense mois rek boo ko bu génnee ci sa salaire di nga gis li mu ciy doon yàlla nee na bi ñu demee ba àdduna bi yëpp yëpp jeex nga xam ne maanaam ci géej gi laa leen doon mooñee di leen ravitaaye Euh, gis nga diggante bi ni mu yàggee gis nga milliardaire bi ci la amee alal borom borom gratte yi ci la amee borom oto yi ci la amee borom banque yi euh, euh, ci la ñuy liggéey borom compte banque yi ci la ñuy liggéey président yi ñu ngi ci ak roi yi mais ñoom ñëpp yàlla nee na ravitaillé naa leen ba àdduna tukki mais bi ma xoolee li des ci samay magasin yi ci géej yi ndekete maanaam benn géej bi laa doon commencé consommer te lu toll ni kaasu attaaya jugewu ci ba tey benn géej gi quatre vingt dix géej yi moom dara laalagu ko dara mais benn bi daal yëg naa ne lu toll ni kaasu ataaye jugeegu ci ci lumière te ci laa ravitaaye li xew yépp kooku kon ku ko fi rombo wax dëgg yàlla dem safara euh, dëgg dëgg dëgg dëgg yow yaa sonn pour dem maanaam du yow dañ la fa yóbbu mais yow yaa doon fittaxu dee ne da ngay dugg safara loolu nag lu ci yàlla man kaay ma yërëm la nga dee ne mukk kooku kebal la ndax bu fekkee faatixa bii rek ku ko mokkal doo dem safara kaar nga sàggan a sàggan ba deena di yow di nga dem safara kooku vraiment sonn nga nag comme daj nga boobu coono pour dugg safara yàlla nekkoon kon bokk na sama xereñ ma bàyyi la nga dem nag demal nag demal demal nag parce que yaa bëgg a dem nag wax dëgg yàlla yaa ngi bëgg a rey nit ñi ah léegi quatre-vingt-dix-neuf géej yi nga xam ne laalagu ko ñu ne yàlla noo koy def mu ne mais fas yéene wu ko jëfandikoo ndax man man du jëfandikoo sama yërmande ndax man kon day mel ni dama matul quatre-vingt-dix-neuf yëpp pour jaam yi la mais comme dem nañu ba yawmal qiyaamati bu boobaa duma ma tuddati rahman ndax day yomba bu boobaa rahim laay tudd muy ñaareel tur bi mooy kiy yërëm ñi jubboog moom jaaduwul mhm. ñi jubóog moom ñi nga xam ne nag topp nañ programme am kon ñi fettirlu ba dem safara dañ leen di mujjee dagg ci yërmande gi bu boobaa rahim rek la ñuy jël nag quatre-vingt-dix-neuf géej yi ak la ca des ñoom ñoo koy consommé ma ne lii dina rey yow loo xam ne humanité yëpp yëpp yëpp consommé nañ ko matu kaasu ataaya jógew ci quelque milliards de personnes quelques uns rek ñoom la ñuy dugal nag àjjana ci hôtel yi gën a luxe war leen a xëpp nag li des ci géej googu pour des centaines de centaines de milliards d'années sëriñ bi teraanga jooju rëy na moo tax kenn ci waa àjjana kenn ci waa àjjana bu nekkee àjjana ba am fa un milliard d'années nga proposé ko pour mu delloo si dellu si àjjana àdduna pour li fi jot a nekk yëpp ci roi royauté ak royaume mu moom ka day gedd day gedd na ëpp naa def day bañ day bañ na xam ne la mu nekkee moo gën fuuf jiite àdduna waa kon poste présidence de la république yu tuuti yi ku mu tax ngay xëccu boo demee àjjana ji nga xam ne benn appartement mu ëpp àdduna dix fois te kenn du xam jullit bi ñaata appartement la fay am yeneen bi nee na benn appartement wu jullit dina ëpp àdduna li ci biir di fois te mën na cee am moom des millions d' appartement kooku ku ko proposé ne ko dellu si waatal àdduna day foog ne danga nga ko bëgg a yóbbu kaso kon rahmaan yi mooy imtilaa bi mooy li muy xéwale waa àdduna mais rahim yi pour ses élites rek la koy jox yàlla ñu ci yàlla boole. yàlla nee na alhamdu mooy première aaya bi dëgg-dëgg ak cant gis nga bi laamil muarraf yàlla dafa préciser dëgg-dëgg li ñuy tuddee euh, cant lillaahi ñel na yàlla rek rek rek yàlla rek ko moom waxul lillaahi alhamdu waxul loolu de alxasru la def alhamdulilah wax ak cant nga ne ah mu ne lillaahi yàlla rek rek rek moo ko moom ci ngay xam ne keneen moomaatul hamdu moo tax nit danga koy gërëm mais doo ko sant da ngay maa ngi sant diw déedéet diw kenn du ko sant da koy gërëm ndax yàlla nee na anishkur lii wali wali dayk nang ma gërëm gërëm sa ñaari wayjur nit dañ koy gërëm mais yàlla dañ koy sant mooy al itiraaf bil jamil nga reconnaître li la yàlla defal ci ay teranga képp ku ne la maa la teral waxul dëgg kenn rek la teral mooy yàlla ndax nit lum la teral teral ba say ñaari wuy jur mënula wax ne maa la créé maa la amal kenn du ko wax kon kenn rek moo la amal te teraanga joo amaat itam kooku moo la ko joxaat kooku mooy allahu jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu moo tax kon da naan alhamdu xeetu cant yi di ñeent comme niñ ko waxee woon ci ubbi bi lillahi ñeel na yàlla rek rek kuy kooku mooy rabbil alamin mooy borom mbindeef yëpp al alamin nag mooy maasi wallah lépp lu dul yàlla rek boo génnee yàlla leneen lu fi nekk ci alamina la bokk yonent yeeg aqtaab yeeg malaaka yeeg existence bi yëpp asamaan ak suuf ba ci taxta sara ak arsh ñëpp ci rabbil ci alamina lañ bokk lan mooy ar rabbu mu ne mooy almaliku mooy ki moom dara le possesseur de quelque chose ku moom portable bii nga ne maa ko moom xam nga moom googu entre guillemets la ay saaxibu euh, hadal jawal man may borom portable bi yàlla nee na ni nga moomee portable bi nu ko raw laa moomee nag existence bi yëpp ba moomaale la ak li nga moom yow xanaa loolu tàgg mënatu ko weesu ndax mën a too wax yàlla lu ëpp lool moo tax yonent bi ne afdalu duaa alhamdulilahi rabbil alamin ñaan yëpp bi ci ëpp doole mooy wax alhamdulilahi rabbil alamin moo tax nga ne alhamdulilahi rabbil alamin mu mel ni dañ ne la rabbil alamin malikul alamin ilahul alamin moom mooy kan nga ne arrahman laa wax moom mooy borom téeméeri yërmande yële di wës nu faalaan arrahim moom mooy borom quatre-vingt-dix-neuf yërmande yële muy réservel ñi baax lool te topp ko arrahmaani rahim euh, mu ne maliki yawmi diin almalik nag euh, moom la firi léegi muy al rabbu ak al wax nañu riwaaya tey ni yi nga xam ne ñoo ñëw ci euh, maanaam maliki yawmi diin ak maliki yawmi diin maanaam yàlla di nga ko tuddee al mooy buur bi mais dinga ko tuddee itam malik mooy ki moom ñu wax ne ñaar yëpp variable na ndax yow mu diin lan moo tax su mooy lan mooy yow mu diin ak diin mooy firi jaza bésu pay gi ndekete àdduna ci service lañu nekk ñun ñëpp kenn na ko ne suba ba ngoon dangay liggéey mais bés bi ñu lay fayee sa salaire salaire est-ce que bés boobu ëppul solo bés yi nga liggéey ah kay moo tax mooy yowmul jaza mu mel ni nag fii ku fi nekkoon ci benn structure liggéeyoo bu fayeku jotee xam nga doo fayeku yowmal qiyaamati nag du demee noonu fii boo fi nekkee liggéeyoo boo demee foofu dangay ngay fayeku par force ndax ñàkk liggéey gi ab liggéey la ah sa kilifa bu ne defal lii defoo ko kay loolu ñàkk liggéey la kon ay punition moo ci juddoo dañ la koy fay de même itam boo defee liñ la wax foofu dañ lay fay mooy yowmul jaza bésum pay bi moo tax bés boobu nag yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na lépp lu yàlla mas a bind ngay dukkat ci àdduna surtout ak saqalay ni muy nit ak jinne dinañ leen restituer loolu la waa Màkka doon weddi ñu teg leen fii saidin waahidin ci benn benn pàkk boo xam ne laa iwaja fiha wala amta foofu pàkk boobu benn suuf bu weex tàll lay doon boo xam ne bu bees la ndax yàlla na yow yawma tubaddalu al ard gayra al ard wa samawat wa barazu lillahi al wahid al qahar asamaan sii da ngeen ko polier maanaam maanaam dama bëgg a wax suuf sii da ngeen ko polier adduna bii ak jaww jii da ngeen ko polier yowmal qiyaamati nag yàlla dafay échanger suuf sii indiwaat ji geneen suuf su weex tàll bu kenn mësta dëgg suuf soosu nag bokk na ci particularité am laa iwaja fiiha du am secousse wala am taa du am ay montagne xam nga fi suñu suuf yi léeg-léeg da ngay dox ba yàgg ñëw ci benn munxadar benn descente ñu ne fii dafa xóot wala jékki nga séen ay montagne fële nag suuf su talli ñareet lay doon weex tàll yàlla boole al awwaluuna wal na am nga téeméeri maam yoo xamul ñii ngeen di janoowee am nga téeméeri sët yoodul xam ñii ngeen di janoowee waaye foofu maam yow xamee ma la woon xewul foofu ndax kenn du tal kenn yonent bi nee na sallallahu alayhi kenn ku ne na nga juddoo woon ci rafle noonu ngay juddoo noonu ngay dekkeewaate ñu ne waaw perkaal bi ñu la sàngoon nag mu ne nëpp na bu yàgg perkaal ba nëpp na ay sa loxo bi nekk ah kon ñëppay def yaramu neen ñuy xoolante suñuy awra yonent bi ree Aysa nekk mbir mi gën naa sérieux noonu hmm. foofu tool tala xoolante ay awra nekku fa neex naa gëm hmm. xam nga tey ku toogoon benn côté ñoo xam ne dañ doon def lu ñu tere ñu jekki-jekki ne police wala gendarmerie hmm. kenn ku ne lan mooy doon sa yitte foo jaar ba échappé léegi nag foofu noonu ngay dawee ku ne diw mi diw diw ma la nee diw mee di daw ban yëre la sol ban couleur yére la sol di ko mën a xam ah yow koy <laughs> yow koy boo ko tontoo sa bari na nga xaar ba ma génn situation bi yow mu diin nag moo gën a raklu loolu mu ne ko ñoom ñëpp ay toogandoo fi saidin wahidin bu ko defee nit ñëpp yàlla dekkal leen awaluna ak axiruna ñu toog maase ci ay at kenn ku nekk na nga meloon fii ci àdduna nga taxaw booleeg rafle googu te dama wax ne koo war a régleel ak moom sax ay mbir rek summi kaw mu set bu dul dara supériorité feeñ na hmm? nit moom boo ko summee set rek eh, eh, eh, tiital nga ko yonent bi nee na lépp lu jóge woon ci ñoom day dellu si di nga ne ma ki la fa nu muy def day wér kiñ daggoon loxoom amputé tànkam day wér yonent bi nee na lépp lu manqué woon ci sa seen yaram day dellu si ba ci maanaam kubéer gi nga xam ne moo nekk ci awra góor nga xam ne dañ koo dinde dindi woon ci jongu wala kubéer gi nekkoon ci awra jigéen ñu dinde ko ci excision yàlla daf koy rétablir kon manquéwul dara yàlla teg leen ñu nit ñi def ay rangé kenn du échappé loolu moo tudda xasr yowmul xasri ñëppay daje amul am naa choix amul am am ma dañ leen rëgët jiital leen loolu mu ngi xewee ñu ko doon estimer ci tolluwaay fee ñuy tuddee Cham tey Syrie foofu la loolu di xewee moo tax fu nit deewee ci àdduna bi fuñ la mën a suul foofu ngay doxe di dox ba yegg Cham avion amul oto amul moyen de transport yi yëpp amul da ngay dox amul sonn naa amul dematuma amul dama kii déedéet da ngay dema ah. metti na bés boobu bu nit ñëpp taxawee jinne yi nag dañu leen wër bu ñu leen wëree ba jeex takk te téere yi nee nañ jinne yi ëpp nañ nit ñi di fois bu ñu leen wëree ba ba pare yow jinne ji nga xam ne bu la masaana feeñu fii nga jommi foofu nag yéenay dendee nga koy gis nii moo lay gis ndax da ngeen am ay contentieux ñaata nit nga dégg ñu ne jinne ka jàpp amul. loolu yàlla dina ko àtte léeg nga dégg ñu diw rab ka jàpp di yàlla dina ko àtte nga defee ñoom ñëpp ñu daje ak shayatin yi jinne ñaar la daf ci am ñoo xam ne ay seytaane lañ ak ñoo xam ne ay julit lañ ak ñoo xam ne ay jinne kese lañ ñooñu ñu teg leen. bu ñu rangé woo wër nit ñi après nag yàlla yabalaat malaaka yi malaaka yi nangami milliards et des milliards la nekk ci asamaan yi yàlla da leen di sotti foofu ñu wër fa nit ñi malaaka bi nga xam ne yow dafa bari doole ba mënoo ko woon gis yeneen jano ñooñu nag bu ñu wëree ba jeex yàlla soog a wax protocole nañ ko wàccil fëtëyam bu màgg bi ñu tuddee arsh malaaka yooyu nga xam ne taxmilu faw euh, euh, euh, fawqara maanaam xamalatul arsh yawma idin samaniya yàlla nee na wii malaaka ñooy jël nag chaise am boobu jële ko ci bisaatul xaq bi mu dëgg dëkk wàcc ko ba ci turbine bañ ko defal moom yàlla kama yaliqu bi yi ñu ñëw andil ko ko yàlla nag soo ko jox ruux ndigal mu doon benn malaaka boo xam ne moo gën a nganda malaaka yëpp kooku ñëw nag wër mbooloo mi yàlla nee na nag bu ruux wàccee ba ñëpp wàcc ci la séance de travail yi di su commencé am ñu commencé rappel ana diw nga ne maa ngi nii nangami milliards nit dinañ leen rappel kenn ku ne amul ab absent ah, maa ngi nii ñu soog a rappel jinne yi rappel seytaane yi rappel kii ñu commencé nag teg euh, ay vidéo kenn ku ne benn nit bu ne benn nit bu ne keroog bi nga juddoo ne uwee ba bi ñu bi li nga mujjee wax dugg a bàmmeel vidéo bi noonu lay toll intégralement yàlla nee na dinaa la ko tegal nga suivral ko sa bopp yow devant tout monde di nga ne jotaay bi dina yàgg yàlla ne aw ma aw euh, euh, am naa jot nag am naa jot te dew ma fen te yéen jëmu leen fen journée boobu benn journée la waaye xam si na alfa sana dina dure cinquante mille ans ci ati yàlla yi nit day taxaw du mën a toog nag yàlla wàcc jant bi tàngal ko lool kenn ku ne nu sa bàkkaar toll foofu noonu la sa tàngaayu yaram di toll ma ni yàlla nee na grandeur dëgg boo leen koy wër bés boobu la daalika yowmul xaq bis boobu mooy bisu dëgg boobu nag ca lay laaj ana président yi ana ministre yi ana député yi yéen ñi doon oote ay sëriñ ana ngeen ana xalifa yi ana nangam ana nangam ba ci ana yonent yi ñuy lox nag kenn ku nekk kullu naasi si wala xibbi xibbi mawsuufun bi ru'bin wa rahbati mboolem yonent yi dañ naan kat kat kat ndax grandeur yàlla ak majesté bi mu wane foofu yàlla nee na boo leen xamoon foofu na ma fay mel ak fierté ba ma fay am ak raklu ga ma fay raglu ngeen war ma mën a nangul nag est que lii du tiitaange maliki yow mi diin man maay borom bis boobu nag laa wax yàlla bu demee bay bàkkoo ne maa moom yow mu diin te xamoo beneen bis bu mu moomul yàlla moomam lundi moomam mardi moom mercredi moom jeudi vendredi moo ko moom samedi moo ko moo ko moom mais yooyu yëpp la leen romb moom weer yi moo at yi àdduna sax moo ko moom moo yëpp mais yooyu la fi bàyyi laa wax ne non yow mu diin laa moom pour moo moom yi ci des mais boobu dafa special ba nga xam ne grandeur u koo nawoon fii boo demee foofu nangam nangam moo tax bari na ku naan ëllëg yowmal qiyaama ci yow rek laa yaakaar loolu fii nga koy waxee jàmm am ci mais yowmal qiyaama ci boo demee foofu ka nga yaakaaroon da ngay ñëw fekk ko muy lox bay kat xam nga luy doon problème bi. mooy moom moom moom ci boppam. fan lay jaar ba lijjanti kaawu boppam. ma ne nag ki nga war a yaakaar kaar boo amoon bor bu la jaaxal. nga ne bu ma demee ci diw mën na ma ko fajal nga dem ci diw fekk ka moom issuer ñëw pour pour saisir alalam nooy def boo amee xel xam nga da ngay dem rek jarul nga kay wax soxla bi parce que kii moo la gën a soxla yow li nga koy laaj loolu mooy mu diin yàlla na fa yàlla nañu fa yàlla euh, musal ci tiitaange yii ci tiitaange yii bu dul woon rahmaani rahim bi mu jiital dañu wax ne yow mi diin mën na yóbbu fit mais nag bul fàtte ne yow mu diin maaliki yow mi diin ki moom yow mu diin bul fàtte ne nag moom mooy rahmaani rahim. nee nañu bu fekkoon dafa bëggoon a tiital nit ki danaan maaliki yow mi diin ba pare soog a wax rahmaani rahim mais comme nag li dalal xel mooy rahmaani rahim moo jiitu maaliki yow mi diin kon dalal sa xel yow jullit bi waaye képp ku gëmul yàlla ba dee di am problème foofu bu rëy a rëy rëy illa man shahida bil haqq wa hum yaalamun léegi nag yàlla wane na grandeur ak màggaayam ci yow mu diin nga xam ne bés la boo xam ne tabaarakallahu bés bu raglu la seytaane yi ak nit ñeeg jinne yi ñoom ñëpp bés boobu kenn ku ñekk da ngay lox ndax bëgg a mucc ci bés boobu yàlla na yàlla boole ci ñi mucc ci bés boobu bi di fadli wa juudi yi hada huwa tawfiq min indillah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh